man di maa ngi leen di nuyu di leen di ziyaare man taalibe laa murit la 100 pour cent sopp sëñ Saalu Mbàkke soppa sëñ Fàllu ndax man am naa sëñ Saalu am naa borom am naa sëñ am naa Mouhamed am naa Maam Jaar am naa Cheikh Ibrahima kom man sama lépp wàcc na man moom ma sëñ Saalu boo gisee ma gën ko bëgg te wax sama wax soriwu ci ñëw naa fi jàkkaaroog moom fii mu ñaan ma dem ba ma demee ca laa ombe sama doom be muy sëñ Saalu mais ba ma demee ba waaj ne ca diggante ba dama tëdd bu guddi mu ne ma soxna Seyda ma mu ne ma dana am ko fi jógee aduna dinañ ko jooy juróom dinañ ko jooy juróom-ñaari fan mu ne ah mu ne ma boo kooku moom moom tur bi mu réer ma lool mu ne bërit mu am baat ba ma wax mu ne ma dee koy wax baat ba réer ma ba ma jógee ma wax ko ture ki ñu dëkkal mu ne ma ah ma ne ko waa mu ne ma baax na bes ba daa dellu si dama tëdd bu guddi fajar laa jóg nii rek. man daal damay nelaw ba mu yàgg mu mel ne dañ ma ñu ma jóg ma ne bëri toll ci buntu kër gi eh, ki ñu dëkk a Touré na ma say na ma ne ko naa mu ne ma am ah, musiba am na ma ne ko lan ma Touba am na musiba ma ne ko lan la mu ne ma sëñ ba nelaw na ma ne ko nelaw na mu ne ma ne ko ah Touré loolu mënutu la ne keroog yendu naa bi jant so laa jël dañ may upp cinq heures laa am doom mu tuddee ko sëñ Saalum mais jërëjëf yaa booy bég nañu day mel ne bisimilah rahmaani rahiim ci barke sëñ Saliou Mbacké. jërëjëf booy tey jii ñu ñëw fii fekk la biir kër sëriñ Saliou yaakaar naa yow yaay taalibe Serigne bu mag bi moom yow moom yaay saalixiina bu mag bi ki nga xam ne nii moom lañ doon wër nag tey jii moom la ñu fekk fii mu toog Modou tey ban yëg-yëg nga am ci teewaayu bës bi. ginnaaw bi ma jullee ci yàlla julli ci yonent bi ñu sëñ Saliou dañoo daf ñoo yar mhm. tàggat ñu. yir ñu yaq ñu ba tax na fi ngay gis ni ba ma ñëwee depuis samedi la ñëw mais fi ma tok ci taatu xey joguma fi sama yépp nak fi la ma fekk depuis ba ma ci wañ bi la nekkon nekkon fi man ak Ali Kebe mais nak ñu diko sante lol nak di sante tamit seigne Touba ta xamni lu war mom la bi seigne Touba nak seigne salihu tok ñu daal di nekk ak mom lu nekk defal nañu ko ñu di ko sant rek mais après nag ci ginnaaw man damaa feebaroon def naa ñetti at ñëwuma Touba mais ren ji ma am yëg-yëg goo xam ne rek ma daal di koy diis ko ko rek jaayanteeg moom ne ko damaa bëgg a ñëw Touba ñëw Touba gi nag du lenn lu dul ci sëñ Saliou mu jàppale ma ci ngir sama tànk yi sama oom yi ñooy metti mais nag maa ngi koy sant sëñ Saliou Mbacke màggal gi neex na am na jàmm am na sutura am na teraanga kenn kenn jàmbatu fi leen te kenn du fi jàmbat leen nit ñu di ko jàmbat rek ñu di ko sant rek nag ngir jëmmi sëñ Saliou Mbacke ku fi nekk rek ku nekk am nga sëriñ waaye ngir sëñ Saliou rek sëñ Saliou rek mooy mooy borom xel koom jaaga mooy borom ndimbal ak yërmande saay rek baatin di borom xel koom jaaga lu ñu am rek moom mooñu ko jox ku nekk nag am na sëriñ ki ci topp. ku nekk am nga sëriñ waaye boo jàqee sëñ Fallou ngay woo ndax moom sëñ Fallou nag ndax ñoo yiir ñoo nit ku nekk nag am nga sëriñ waaye boo jàqee sëñ Fallou ngay woo ñu di ko ñaanal wér ak gudd fan ak ak njabootam sëñ fa sëñ Saliou mii nag ñu di ko ñaanal wér gudd fan ak njabootam doomam jii mu fi bàyyi muy sëñ Xaadim mii ni tànki baayam doxe woon noonu la doxe am na yërmande am na yëg-yëg am na fulaal na ci nit. boo jogee dem si moom dina taxaw dina toog wax ak yow tàggat la teg la ci yoon kon nag ñu di ko ñaanal doomam ji góor jii fi nekk yal na sutbaayam aw fan yal na sut aw fan ca kaw nag yokk rek nag ba yëg loolu da laa ci amoon nag lu ma leen ci wax yéen yéen waa rajo fan. Mm, ñooy waa GR Info TV. Eh, ah, Info TV waaw tey jii nag ñëwoon ci biir kër Serigne saali tabbi woon doon taatan ñenn ñi ay kaddu mooy ñi nga xam ne ni dañoo mel ni yow. yaay booy yàlla na tànk yi wér yàlla ko gën a mën ci barke Serigne Saliou di gën di teew barke Serigne Saliou man nag maa nga dëkk ba Malika mhm, Malika Malika place dëkk ñun waa Pikine lañu man Pikine laa jóge jënde Malika kër mhm. ma di leen ñaan nag ci kàttanu yàlla yont bi rek nañ fexe na ngeen fexe ba teg ko ba bu ñu waate di ngeen xam ne lépp dëgg la mhm, yéen it na leen yokk rek seen rajo bi ca kaw ci kanam yàlla na ci sëñ Saliou teg loxo na ngeen yokk ba yëpp jërëjëf yaay boo lu la Serigne Saliou defal rek la Serigne Saliou de day suñu yaakaar tey ak ëllëg kooku tuutaayam ci kaw suuf ndax di jikkoy yàlla yi rek la làmboo ndax dafa yéwante dafa tabe ñun nag saalixaat yi di cantaaku nii dañ koo sant di ko gërëm ndax kooku moo ñu moo ñu defar juróom-ñaari réew foo dem am na daara Serigne Saliou moom mooy Serigne Touba ci kaw suuf dañuy sant nag dolli di ko sant ndax moom ay fayam du jeex ay mayam du jeex chaque jour mu ñuy may moo tere ñu xaaraani moo ñu tere yalwaani te moo ni woon ruus naa bokk ak nit jamono muy faatu dem safara te moo ne su ma leen njëkkee dinaa leen xaar soo leen yéexee ma jël si leen te loolu lay doxee boobu ba léegi. xale yi mujje juddu sax sëriñ Saliou dañ cee bari ndongo yi nag wéet nañu jooy nañ jooy nañ ko jooy yu foor te moom mooy suñu yaakaar tey ëllëg ñu koy ñaan rekk ndax xam nañu jógewu fi mu ngi fi suñ ne woon ne ko Mbàkke léegi day wuyu sori wuñu centimètre moom de moo moom moo gën a xam lu nekk suñu xol yi waaye dañuy sant nag boobu ñu bàyyi bàyyilee sëñ Seex mu sëñ Saalim sëñ Seex jikkooy baayam rek la yor sëriñ Saali moo ne soo leen gisul ci man ngeen jàpp ci dëgg-dëgg sëñ Cheikh xel kom demal sëñ Cheikh am na fay ndongo daaray njurun demal am na fay ndongo dekki ga xel koom nag kon waxaalewuñ ko waaye nit ñi nag moo ne woon dinaa dëbb te doo dégg këndëng te jamono yooyu ba ko sëñ Saali wax fekk ñun amuñu ndey ak baay jël na lepp jox ko seigne Cheikh seigne Cheikh nak yoon baangi ni doxalal ba kérok ñu ak suñu waaja ndax xamna nañu suñu waaja mat way té képp ku ko yaakaar do torox man dé yaakaar na seigne Saliou ndax sama salon bé mom la fa def seigne Saliou sama nek fu may tëdd seigne Saliou la fa def mom rek la yaakaar té ak ëlëk ma ngi koy ñaan mu doli may ay may ndax xamna ay mayam du jeex ay fayam du jeex ñi ngi santaan bayyi sëñ cheikh mu doxal ndax sëriñ Touba mo nek sëriñ Saalib ci kaw souf kon sëriñ Saalib bu ñewé ne képp kuma top na nga top sëñ cheikh kon ndigal la rek sëñ cheikh day bay rek sëñ Saalib tracé na bu yàgg ñun na dañuy ñaan sëñ cheikh mu gudd fan ak ak njabotam ak ñepp ñu yaakar ci darajey sëriñ Saliou bay nañ ko sëriñ Saliou nag moom ndongo dama leen delloo Serigne saali waaye ñun ñoo ko bàyyi sëriñ saali ndax mënoon na ni sëriñ saali suma woy jur la waaye Serigne ki Serigne Touba nee na Serigne Saliou dellu ne biir ñaari biir a am mu ne sa biiru bopp yaa ciy def. Serigne Saliou bi ci ron xay gi nga xam ne nii kenn ku nekk xam nga ko boo ne borom xay ga moom ñëpp daal di xam fi nga taxaw fan la tey jii ñu ñëw fekk la fii ci biir ëtt bi nga nekk saalihiina bu mag nag tey jii ñu ñëw di la laaj sa yëg-yëg ak sa tolluwaay ci màggal gi. waaw man Serigne Saliou man moo ma yar Serigne Saliou moo ma yar yaayi Sëñ Bas soxna Fatou Diop njurul moo ma yar yaakaar naa man kenn du wax Serigne Saliou ndax Serigne Saliou ba ma nekkee tout tànk muy nuyu si sama maam. mook sama maam Njuufeen ñoo doon bokk tëdd ci benn lal sama maam daan lii tegg niwul xaar ñu wutal Serigne Saliou néeg boo xam ne saa yu ñëwee ñu fekk ko sëriñ Serigne sama maam moo ko jëkk a jox dong bu jigéen teg ca aw fos man sama maam at mu jot mu jox sëriñ Saliou aw nag teg ca dong sëriñ Saliou mas na benn kii benn euh, tam xarit sëriñ Saliou ne moom amut lu mu def ci xéewal gi togg leen cere yi dëppale ko foofu man soo ma laaj sëriñ ma Massamba ndax sama ndaw yëpp falaa ko def léegi bi ñu toggee cere yi mooñ ko dëppale ko foofu léegi sama maam daal di mel ni dafa xam ne sëriñ saaliw ah dafa am lu mu soxla sama maam yëkkati aw nag wut luye oto teg ko ca ñu dem njurul dam jox ko sëriñ Saliou sëriñ Saliou daan ne kan moo ay seet sëriñ Daam Diouf ñu ne ko waa mu ne ah loolu laa xamoon sàllaa mos de loolu laa xamoon moo tax nanguwumaa wax dara ne aw ma lu ma jël kon donc wàcceel leen nag ngeen lewetal ko boole ko te lu ma wax Serigne Saliou. jërëjëf yaay booy lu la Serigne Saliou defar. man lu ma Serigne Saliou defar xanaa yar ma ma tërbiwu nekk tout tànk nekk ci kër sëñ saaliw mu bëgg ma lool sëñ Saliou dama doon yónnee njur góor a jéey la wax ne ko dama jëlee la ma ndey mu ñëw fekk si ma fii. ma nekk ci soxna ti Jaxate ba aat bu ma neexee Serigne Saliou daa daal di wax góor a jee mu ñëw mu dole waat ma njurul man man kenn du ma wax Serigne Saliou kenn du ma ko wax. kenn du ma ko wax amiin.